bismillah bu dee laaju mbokk mi ci tegu muy laaj jigéen ji bu sëy see lal yi nga koy jëndal ak armoire rek nangam nangam ndax bu yàlla dogaloon sëy batas ndax da koy yóbbaale waaw da koy yóbbaale ndax moo ko moom da nga koo jëndoon ngir moom waaw lépp loo xam ne rek moom moo taxoon da ngay takk jabar nga daal di jënd yooya jigéen daam yoo koy jëndal yooya su bu ngeen tasee man nag bu ngeen tasee rek falaa yam niiwu ay mu ñaanee baat rek boo ko mayee baat ndax loolu amu ci solo lam solo daal mooy sëyatu leen jeex na su boobaa kooku moom alalam la moom ndaw si buy dem da koy yóbbaale moo xam moo xam yaa ko fase moo xam moo la ñaan baat ñaari ñoo yem wax naan ay bu ñaanee baat day bàyyi ba yooyu wérut wallahu aalam bu dee laaj bi tege mbokk mi di leerlu nee na waxtu ajjuma fu mu tàmbalee ak fu mu yem damaa xamul lu mu bëgg wax bu dee waxtu julli wi mooy waxtu julli yëpp a yem rek euh, damaa xamul ba xam lu mu bëgg wax waxtu ajjuma waxtu ajjuma daal mu ngi mel yeneen waxtu yi rek tisbaar tisbaar da la tàmbalee mooy tisbaar waaw tisbaar daal la tàmbalee mi ngi yem ci buñ ko jullee ba noppi daa yaatu moog yeneen julli yëpp a yem nekku ne dañ koy fixé ne faaw heure nangam lay doon maanaam ci message ñu ne une heure quarante rek lay doon déedéet waaw moog yeneen heure rek day soppi ko mën naa nekk une heure trente cinq mën naa nekk une heure quarante mën naa lépp ci waxtu ajjuma la bokk gudd na nag moom kon bu fekkee am na ko julli une heure cinq mën naa wér am ko julli quarante mën naa wér am ko julli cinquante mën naa wér am ko julli euh, deux heures zéro wala sax deux heures nangam yooyu yëpp mën naa wér waaw moo julli daal ñoo xam nga jàkk yëpp duñ julli ndoo ajjuma ak yeneen julli ñoo yem rek xam nga jàkk yëpp duñ julli ndoo ñii dañuy julli tisbaar sëlmal nga dégg ñee di doog a am noonu rek la mel incha allah léegi nag jumaa joo ci jullee joxe say farata ba man rek yow moom farata ja incha allah wàcc na la jeex na tàkk subaa yow moom sa ajuma jeex na luñ lay tereete ak luñ lay kéete amatu ci moom jeex na lañ la santoon def nga ko ah, euh, tereetuñ la dara wallahu aalamu euh, mbokk mi laaj ne maamu mi maamu mi nga xam ne de maamu mooy kii nekk ci ginnaaw imaam nee na bu weesoo am njàppam yàqu ñu la julleem yàqu ndax am na leneen lu mën a yàq julleem waaw ah, bari na li mën a yàq julleem kay bari na bari na lool lool mu ne su ko lim ah, bu fekkoon bàyyi na farata ak julleem yàqu bu bu bàyyoon benn sujjóot dong bu bàyyoon benn sujjóot rek loolu mën naa ah, yàq ak julleem bu fekkee nag mën naa wàcc ràkk boobee ànd ak imaam bu noppee fay ko loolu moom baax na bu ñu yàq julleem foofu nag jubluñ ci ne julli gi day yàq complètement nga ne daa war a génn waaye rakk booba mën naa yàqu ta bu fekkee ne defaru ko julli ga mën naa mën naa mën naa yàqu waaw rek la laa bëgg wax bu fekkee nag ni mu ko misaal mi mu joxe nga xam ne bu njàppam yàqoo nga xam ne moom ak julleem dafa yàqu complètement bu dee bu dee loolu la bëgg a wax xanaa mu dindi yéeneem bu fekkee dafa dindi yéeneem moo xam yéeney julli gi wala yéeney roy ci imaam ji loolu julli day yàqu fasaasa naka noonu bu xaqataayoon ree ak julleem day yàqu bari na daal ay masala bari na ay masala xam naa nit ki nag mooy xool lam def moo laaj nangam laa def ci ginnaaw imaam ñu xool ba xam loola waaye mënuñoo lim nag kaa ya nga xam ne maa moom julleem mën na caa yàqu yëpp mi laaj ne bu fekkee dafa dem ci jàkka sa imaam joo xam ne imaam jo daf ko doyut moom ndax sañ naa ber julleem loolu amul ci lislaam lislaam diw doyu ma damay ber sama julli li am kay imaam ji duñ xool ndax yow doy na la dañuy xool ndax doy na lislaam ndax doy na sharia mooy sharia li mu bëgg ci imaam ndax am na ca wala amu ca kon du yow lay doy sa jëmmi bopp ndax yow sa jëm bopp ci mën naa am du am solo kon ni lislaam waxee ni sharia rëdd ne imaam nii la war a mel bu ko imaam melee même bu la doy loolu moom amul solo ndax ñun ndax diina ji wutuñu woon ku la doy yow dañu wut rek ku doy ku doy diina ji rek su boobaat kook faawu da ngaa war topp ci ginnaaw faawu da ngaa topp ci ginnaaw bu fekkee imaam ja ne ko sariya santaane doyut waxuma la yow waaye kon doyut kenn ah, waxuma la yow waaye kooku mënta jiite kenn mënta jiite kenn subaana duñ wax ko ne yow yow yow mi du ci am solo man man amul solo li am solo rek mooy imaam jo ndax mel na na dina santaane wala melu ko waaw ah, boo doon daal ma duggee jàkk fekk imaam joo xam ne wóor na ma ne moom matul imaam ñi ko sariya rëdde ah ñu ne ko matul imaam moom mënta jiite kenn waaye yow sa jëmmi bopp ci nag moom mën naa mën naa bañ am solo ci wàllu ni ñuy seeta julleeg nu ñuy xoole imaam xëy na boo demee loolu la loolu la bëgg wax rek mooy imaam joo xam daal xëy na ñi dañuy gis imaam xëy na mas nañoo gis imaam def bàkkaar wala mas nañoo gis imaam di xuloo wala boog am nañ problème ñu daal di jàpp ne imaam ji moo daa doyut déedéet mooy yàlla dutee mu mat imaam doonte nag la gën mooy imaam ji nu mu gën a maanoo gën set moo gën moo gën doonte dafa mas a sax ba nga xam ne mas naa njaaloo téewut mat na imaam waaw téewut mat na imaam wala imaam ratib nag ñu bëgg nag mu ñu tànn koo xam ne ku set la koo xam ne xëy na nit ñi duñ am lu bari luñ ko mën a jame wallahu aalamu mbokk mi di laaj sëñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa jàngale ci eh, al jawharu nafis ne rukon am na borom xam-xam bu wax ne mënees na ko def boo siggee ca rukon ba ah, xunóot laa bëgg a wax mu ne borom xam-xam boo siggee ca rukon ba mën ngaa ah, ibnu habib kàngam la ci ngiru imam malik rahimahullahu taala moo ko wax ah, xunóot daal ñaari kaala la ca gën mooy bala ngaa rukon boo jàngee faatiha jàng saar bala ngaa rukon rek nga xunoot foofa loolu moo ci gën bu yàlla dogalee nga fàtte ko nag nekk nga rukon waaw da ngaa waroon xunoot bala ngaa rukon nga rukon waaw kon boo si géemal ngaa xunoot foofu su ko def mu gën a dëppoo waxi ibnu habib ji kon waxi ibnu habib jooju da koy bañ a def ixtiyaaran jekk-jekk rek def ko noonu <coughs> waaw boo ko boo ko fàttee daal moom man ngaa siggi <coughs> boo siggee ca rukon mën ngaa xunoot laataa ngay dem su jooti waaye lañ lañ taamu nag lañ taamu lañ lañ sopp mooy nga xunuut laataa ngay rukoo wallahu alam mbokk mi ngi laaj xatmu ndax ku ko defut dana wàññi dara xatmu jotewut ak dara alquran xatmu daal ak ñaan la mi la nga julli ba noppi tàllal say loxo ñaan am na ñoo xam ne bu ñu jullee ba noppi dañuy jóg dem dara loolu ma jotewut ak julli gi moom jeex na nga ñaan ak nga bañ a ñaan loolu yow la rek booy jàng alxuraan ni tàmbalee ca bopp ba alxuraan ja jeex jeex na loolu lañ loolu lañ bëggoon boo ñaanee defee xat mu baax na boo defut xat mu tamit loolu jutewut ak dara njàng ma moom kaamil ba moom baax na na nga ko jàngee bu baaxee rek doy na loolu nag ñu bëri dañ defe ne xat mu daa bokk ci alxuraan wala boo ko defut ay gis ñu koy garaawal lool sax waaye kaamil naa du baax ndax jànguñu xat mu bi loolu jutewut ak dara njàngum alxuraan njàngum alxuraan moom njàngum alxuraan la xat mu ak ñaan la fi boo jàngoon ab isi wala aw saar dong bu neexee boo noppee def xat mu xat mu ak ñaan la nit ñi nañ ko comprendre noonu wàccu wàccu ci alxuraan yorante bi bàyyi ko bàyyi ko fi saxaaba yi du ñoom ñoo ko bind Euh, ak ñaan la rek daal misaal mi ma joxe yomb na nga julli ba sëlmal julli ki moom jeex na ñaan nga du tee julli gi baax ñàkk nga ñaan du tee julli gi baax moo nga jàng alxuraan ba noppi ñoo yem moo xam xatmu bi nga jàng euh, kaamil bi nga jàng ba mu jeex wala daam jukki alxuraan boo jàng ba mu jeex ba tey bu la neexee xatmu bu la neexee ndax mooy ak ñaan ñaan nag nit ki heure bu ko soobee rek la koy def waaye bu ko deful nag du yàq dara ci njàng ma wala ci julli ga wala ca koor ga taamu nañu nag nit ki bu defee jaamu yàlla ba àggal mu daal di ñaan foofa foofu bu nangu ñaan la wallahu aalam mbokk mi di leerlu ne dafa gis ci jàkka yi daal ñoo xam ne xëy na moom dañ leen jàppee kilifa ci ni mu laaje waaye mu gis ñuy def noo xam daal daa xamul ba xam ndox loolu daa am mazhab borom xam-xam yu ko nangu wala wala lu mel ne fay nee na duñ fay dañuy def binaaw waaw si damaa yaakaar da da ngaa daje xamul nu ñuy fay rek loolu bari na ci jàkka yi. léeg-léeg nga gis nit ci jëmmu nii comme ñun li ñuy tuddee kilifa rek mooy ko xam ne xëy na mag la som na dara nangam nangam ñu ne kilifa la fekk fekk fekk bëri na ay masala yu mu xamut waaw mën naa nekk sa kilifa guñ jàppee kilifa diine nii ndax kilifa diine moom ndekam nit ki sa baay ba doonee kilifa rek faaw bu fi jógee yow kilifa ngay doon nga ne yow nekkoo kilifa ci sam njàng sa ragal yàlla waaye xëy na da koo doon rek kooku mën naa bañ a xam bu fekkee jàngutoon melutoon na baayam yóbbu ñu ko mu jàng ba leer leerlu masala yi ñu jékki-jékki ne ko yaa a ne ah bu fi nekkee te xamul diine tamit loolu rek lay doon mën na def ay mbir su baa yooya taxul mu wér mhm. kon euh, mën ngaa daje koo xam ne dangay jàpp ne kii kat kilifa la war naa xam diine fekk fekk daa xamul nu ñuy fayee julli dong hmm, mën naa bañ a xam mën naa bañ xam nu ñuy fay ak julli mën naa lool mën naa am lool rek la waaye fay moom ñëpp borom xam-xam borom xam-xam yëpp ci d'accord buñ la rawee ci ak julli moom da ngay fay xadaa u kay la am ñu ñu am binaa u kay la am luñ ci wax xam na julli ki nu muy demee am na ñoo xam ne dañ ne moom dangay jiital xadaa wala da ngay jiital binaa foofu la ñuy nekk di werante waaye xadaa u moom képp ku ñorok ci jul da fay ni ñuy fayee moom moy ni ñuy fayee rek mooy xool la imaam njëkkoon a la la imaam ray woon nam toftaloo woon nga tegalee ko noonu lam ci jàngoon nga jàng jotaay yeeg taxawaay nag mën naa amuk coppiku waaw kon bul moo tax dañuy wax ne ci nit ki waaye da ngay da ngay xamee nit ki ci diine maanaam diine moom dañ ko rëdd mu nekk nee képp ku ca jaar rek xamal na loolu mooy yoon wax waaye bul na diw bi mbaxana mu rëy mi eh, Alioune Badara turam bi nangam ak mu yor daara nangam nangam ah, kon bu defee nangam rek daal dina noonu la lool boo ko defee kon boo dajee ku réer nga réer moom da ngay xam diine rek xam yoon wi ku jaar ci yoon nga xam ko ku ca jaarut nag rëyaayam ak aw turam bu mu la jaaxal mën naa am daa xamul dong naka noonu béréel ak yàllut moom it noonu rek la ku ñelaw ci julli lu ñu war a biral da nga ko war a biral lu ñu war a yàllu da nga ko war a yàllu biral nag naa xaw a suufee mën naa biral biral bu xaw a oyof loolu it mën naa nekk waaw bu dee leneen it loola jaaxal nga laaj ko ko waaw nit ki def dara nga ah, bi kat da ngaa koo xam ne ku ñuy roy nga ma gis nga def nangam mu mel ne man damaa jàppoon ne nangam la ñu war def ma ne woon xaaral ma laaj la ko su ko defee bu dee borom xam-xam la mu leeral la la ci jaaxal bu dul borom xam-xam la xam naa moom doo ci mën am ak leeral wallahu aalam <coughs> mbokk mi di la di leerlu nee nit ki di wax sëriñam naan yàlla na ma sama sëriñ dimbali <coughs> a ah, waaw ndimbal de moom yaatu na dañuy xool ba xam daa am ndimbal loo xam ne yàlla dong nga ko man ndimbal loo xam doomu aadama mën na laa dimbale ca la mu man moom kon bu fekkee kooka day sàkku ci ab sëriñam yàlla na la sëñ diw dimbale fekk sëñ diw moomay loolu muy sàkku lu nit man la lu doomu aadama man la loolu moom dara néewu ci waaw bu fekkee nag day eh, loolee mbirum yàlla la waaw ah, mbirum yàlla nag deesu koo jëmale ab jaam sëñ Tuubaa nee na fakun bi rabbikal muini sastiaan wa in bi xayrihi staanta laa tuaan nee na booy wut ndimbal wutal ndimbal ci yàlla amaa jëmmi xeeti waxen yooyu nag yàlla na la sëñ diw dimbal yooyu nag moom mat naa moytu lu ci nit mën a jublu rek ndax fa muy yóbbu nit ki fa yóbbu nit ki baaxut nit ñi moom dañuy tàmm baatu baatu baatu bokkaale yi moom day xaw a bari lool donte nag baat yi moom mën naa am noo ko firee waaye daal li gën a wóor mooy jéem a tego ci yow na te wattandiku rawatina ci jamono ji nga xam ne njàng bariwut réer na ak ëppal ak topp bakkan ak topp xaal nga ne nit ñi ci lañuy ñuy doxee soit lépp loo xam ne jëm ci yooyu la jëm ci bokkaale yàlla dañ koy moytu ndax bokkaale dafa dafa diis lool waaye loolu mooy teqantal li wallahu aalam mbokk mi laaj nee na day dégg ñu naan mooy yàlla di dégg ñu njaalo mu mel ne dañoo bokkut waa ñëw bokk waaw njaalo mooy yàlla la euh, boo nee mooy yàlla tamit njaalo day dugg ci biir mooy yàlla mooy mooy yàlla mu baatu wolof la bu leer nañ mooy juuyoog yàlla moom yàlla ne bul def nga def wala mun a defal nga bañ a def loolu dong la de du njaaloo dong nag lépp day dugg ci biir ki fen dafa juuyoo ak yàlla ki julli jot mu bañ a julli eh, wala julli ci waxtu wa te amul ngànt dafa juuyoo ak yàlla mooy mooy bu juuyoo rek mu ñu ne defal nii nga bañ a def la mu wax dong mooy ak mooy njaaloo lépp day dugg ci biir wallahu aalam waaw ah, kon loolu moo fi jotoon a dajaloo ci ay laaj lépp lu ci jub ci ndimbalu suñu borom la lépp lu ci eh, nekk ci njuumte loolu mënta dégg doomu aadama la waru leen bett sax in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim